ami site internet net bi tv dal leen ak ci seen tënkum xibaar coow li coow li jeex wala gaañu amul baag la di Macky Sall rek renoncé na ne du doon ab candidat ci élection présidentielle yi ñu doon ma ci jàkkaarloo nag bu doon amal niki tey ji rek ci kanamu nation bi moom Macky Sall nag la mu daal di xam ne rek moo di ne du nekk candidat ci élection yi ñu doon ma mu mel ni rek ku jéegi nag lutte bi ñu doon yàgg xeex rek jamono ji nag daal am ndax foo tourné rek dañ doon dégg Macky doo bokk Sonko doy bokk laaj bi samp jamono ji mooy est-ce que Sonko nag élection yi ñu dëtmal bu ñu fàttalikoo nag ci atum 2012 kii di Macky Sall faloon nañ ko falaat ko 2019 waaye nag 2016 nag dafa daal di woon saytu li nga xamante ne nag conseil constitution mu mën a xamle ne moom mënta am ñetti mandat yoo xamante ne yu tegaloo bu ñu fàttalikoo nag samedi bi ñu génn rek kii di Macky Sall daal di xamle woon rek moo coalition Benno Bokk Yaakaar am ndam lu koo xam ne rek pare na tey ji pour ndëgg sarax li nga xamante ne nag moom mooy Benno Bokk Yaakaar loolu la daal di xamle waaye nag ma ngay xam ne ne dina leen apporter soutien bu baax ngir coalition bi nag jëm ca kanam ndax kenn le wu liggéey bu rafet bi nga xamante ne def nañ ko ci wàllum politique def ko ci wàllum koom-koom du nak rek dinañ ci ñëwaat yeneen i jotaay xabaar bu leen fàttee abonné ba saale cloche de notification ngir amaat yeneen i info jërë